parce que c'est très important moo tax ñu ñu ñëwaat ci moom joxaat ko beneen temps de temps de temps alors Thiat euh, par rapport euh, ak euh, li tukkee peut-être ci ci rencontre bi ban appréciation nga si def est-ce que dal na sa xel cette sortie du ministre ak ñi jot a génn mu di Pala Meng ak Innocence Ntap Ndiaye. bon d'abord dama bëggoon tuuti rek rafraîchir la mémoire de ma sister xam naa rafraîchir la mémoire moom bonul daal wala su fekkente ne mun na. oh tout de suite Macky Sall mu wax ko man may kan wala man fan laa bokk <laughs> euh, pour rappel deux deux étapes rek la ci wax mooy ñun ñëwee ñi nga xamante ne bi affaire yi tàngee moom ci ñun la ñëwoon ñaan ñu wàllu daal nañu dimbali leen ma pour élection yi te xëy na bu ñu amoon attitude boobu noonu poste yi poste yi mu joxe ñu bëri xëy na yi mu jox ay ñu Mansour peut-être bu ñu ko nangoon ñu ñoo fay toog tey élection 2000 2011 et 2012 ça c'était juste pour rappel quoi beneen affaire bi ma bëgg wax Mansour nee na déggoon nañ ci ay points yu bëri mais benn point kese la nangoo wax mooy mbirum bii yeneen points yi yan la nañu ko wax quand tu déggoon nañ ci point yu bëri yan point la pourquoi benn rek ngeen ci nangoo wax benn ngeen ci wane décret décret bii nii ma gis nii nii nii nii comme yeneen ni décret yi rek après da nga gis maire yi ñoo koy laxasee caaf parce que amul njëriñ ci dëkk ci dëkk bi chaque fois signé dégg nga fi décret bu ne mais rien en ci application bi ci mujj mooy bi gën a askanu Sénégal mooy mbirum luyaas décret génn na ci mise en œuvre loi fu ci toll loi sax génn na ci uh-huh. tey tey la sénégalais yi gën a sonn ci mbirum luyaas donc très rapide ci génn bi signé mais rien du tout ci exécution parce que taxul ñu jóg ce que j'ai tout de suite c'est oh, oh, c'est c'est un manque de respect parce que tu pas dire hier que bu ngeen bëggee ngeen grève bu ngeen bëggee ngeen nangam après tey nga ñëwaat taxaw ne déggoon nañ ci kàddu vraiment kontaan kërëb kërëb quand quatorze syndicats le secteur du transport aujourd'hui li fa nekk ci ay Sénégalais ëpp na quatre mille ou cinq mille personnes quand ils ont décidé de faire leur grève sa paralyse tout un pays en dans son entier waxuma la économie économiquement mais ñàngum xale yi pàcc mi leneen ak leneen ak leneen ngeen ne yéen vous ministre ministres amu leen jot pour ñëw saafara coono boobu nga xam ne mooy jafe-jafe sénégalais bi gën a tagga tembe nañ ma wax ministre yi concerné wu ci affaire bii nii lan moo nekkoon seen occupation ci ces dernières quarante huit lu soxla soxal askanu Sénégal nañ ma ko wax. comme mais mais mais Thiat est-ce que est-ce ñàkk jot la euh, wala justement dañoo bëggoon bàyyi. seen hmm. ministre de tutelle. non euh, ñaari ñaari lecture moo ci am. Hmm. ñaari lecture moo ci am xam nga dañ toll moment boo xam ne c'est un jëm ci ay local tous est dans là du pouvoir qui sont. soit mandaté quelque part pour doon candidat ou autre chose tout ce qu'ils veulent aujourd'hui c'est man maa régler cette man maa régler problème bi man maa saafara solution man maa politique kese politique mu leen tax a jóg mais répondre wuñ ci problème mu sénégalais yi benn affaire bi bi xamante ne gën na grawati aujourd'hui y a des gens qui sont sortis pour dire déggoo nañ ci ko lever moo doon bi lever nañ ko pour c'est un manque de respect c'est un manque de respect total point yi ëppal solo sax sénégalais yi yow waxu leen ci jëlu leen ci ay solution kon li ma mën a wax ba wax ko mooy ne man sama yéene mooy grève bi jeex ah. sama sàkku mooy grève bi jeex parce que même bu fekkente ne moo du Ndiaye dafa am oto di nga romb nit bu ne la dimbale ma nga yóbbaale ma kon yow mi am oto sax yëg nga grève bi waxatuma laak ñi amul oto taxaw ci arrêt yi di xaar ku leen yóbbu kon li ñuy sàkku di ko ñaan mooy grève bi jóge fi mm. mais na fi jógee parce que dañoo solutionné wala dañoo apporte ay réponses yu claires ci seen ay revendications su ngeen ko deful di ngeen grévaat dans trois mois. xëy na foofu dina gën a méttiwaat. moi ngeen levee moo d'ordre mooy li may sàkku man waaye na ngeen ko lever sur des bases très claires parce que décret bi tekkiwul dara gëw ma ko beneen bi mooy. ka ngeen ka ngeen def seen interlocuteur yorul problème kii bi yorul problème mënul problème mu yi et je me demande pourquoi à chaque fois qu'il y a des remaniements ministériels moom c'est deux ou trois personnes yoo xam ne ñoom ñooy des ci gouvernement bi te fépp fu ñu munti jaar gaaf lañ fa def régler wuñ benn problème sénégalais gaaf la ñuy def tout le temps Mansour est connu pour faire des gaffes dans les ministères yi mu jaar et ñëpp gis nañ ko contrat wu. SONES bi jëlee fii jël seen au nangam nangam donc c' une vérité. Ah, ndox mi ndoxu Sénégal Sénégal ndox mi est ce que gis nga qualité ndox bi am Dakar. la qualité de l'eau les gens disent que saafara ci sotti wala potoxol la ñuy naan <laughs> alors que c' son ministère. alors que il avait il nous a ay usines de dessalement des machines de trucs des postes pour lekk xaalis le poste bi ñu ko joxoon ci période corona bi lan lañ ci def où les contrats yi ñu joxe. gré à gré bi sama xarit bi sama nangam bi nangam bi naarali benn na Modou Ndiaye après ñu dëkk donc il faut qu'on règle ce problème ñun nañoo sonn ci ay benn nit wala deux nit ñu jël réewu Sénégal bu ko pàccoo séddoo pour seen ay propre intérêt sénégalais yi toog di souffrir sortez et réglez ce problème des sénégalais parce que sa urge et je vous le dis tout de suite su ngeen lever seen mot d'ordre te amu leen satisfaction poñ yi ngeen di casse pour sénégalais yi benn parce que bu ngeen ko réglé wul di ngeen mais dañu grévat dañu grévat parce qu'on va pas nous écouter damay doon ci wax ci ministère des affaires étrangères yu waxagul maa ngi ñëw ci yow donc ministère yi muy wax euh, intérieur affaires étrangères euh, kile euh, forces armées ak finance et mais est-ce que vous avez jamais vu dans un pays dans ce pays là mhm. facture boo xam ne amul TVA état moo koy émettre fii mooy facture plaque les documents administratifs de transport ont été les prix ont été doublés multipliés par deux c'est-à-dire carte grise 7500 dem na 15000 plaque 21000 dem na 42000 sans TVA moo tax ñu convoqué ministère des finances ñoo expliqué ñu loolu fan la état di defee ay factures yoo xam ne amul TVA pour lan loolu Sopre Technologie une société privée mobile avec l'entête du ministère et de la daal di signé ci suuf avec le cachet de Sopre Technologie dirigé par Balasek je ne personnalise rien du tout daal di ne doublé nañ tarif yi par arrêté numéro tel arrêté boobu ñun dégguñu ko dégguñu ko le 28 juillet par force ñëpp la ñuy doublé yéen seen plaque bleue yi ngeen yor ku ko ci yor di nga fay 42 000 francs te te te 21 000 nga waroon a fay doon kaas loolu ñu ñoo leen koy kaasal. parce qu'il y a près de 2 millions de véhicules nee nañ officiellement 650 000 litiges extrêmement graves qui vont euh, être jugés di nga gis oto yoo xamante ni deux wala ba cinq véhicules yu daw ci benn plaque c'est un problème à régler duggaguñ ci parce que plaque yu oto yu bees yi rek yu importé yi la ñuy dugal la ñuy immatriculé bés bu ñu commencé immatriculé plaque bleu yi yuuxu dina jóge fu ñu ko séntuwul loon d'accord te boobaa. au lieu de vingt et un milliards rien que sur les plaques ce seront quarante deux milliards qui vont récolter waxatuma carte grise yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen waaw alors loolu est-ce que dañu war a toog di ko seetaan ci mbas mi ci période mbas mi état bi ñëpp di yokk diwlin ceeb et cetera ñun état bi dañuy yokkal suñu plaque di ko doubler loolu dañu war a togg di ko seetaan tracasserie policière fépp la ba ci concessionnaire état bi sax dañ leen di jàppale ci loolu boo maraîcher gi nii hein maraudage da ngay yot sa taxi war a génn ci région bi ñu ne la déet dangay ngay marauder ab agent boobu maraicher moo la jàpp ànd ak benn policier wala gendarme taxaw la ca mbaaw mbaa fii ci biir dëkk bi ne la da ngay marauder yow nga yor sa taxi yëpp nit na da ngay génn Dakar ñu ne la da ngay marauder te tu as le droit de le faire fay ku le vingt quatre mille francs nga dem police euh, euh, centrale ñu fay la ku douze mille contravention bu amul fenn si suñu këyit six mille la yem mu nekk nii euh, Cheikh dafa bari ay problème boo ci commencé benn sax ñeneen ñu meral pèse essieu c'est pareil taxi yi c'est pareil euh, à l'AIBD ah injustice yu kenn xamul ñu laas leen teg di bàyyi clando yi ah ñun clando yi bëgg nañ leen nañ leen régulariser c'est tout c'est ce qu'on demande alors cher mu nekk euh, énormément de ainsi de suite il y a xamante ni problèmes yoo wax rek ay dañuy xaar peut-être ñu ñu ñu résoudre justement ces ces problèmes là moi la poire en deux je m'adresse à l'État Euh, d' abord euh, grève bi da ngeen wane seen capacité d' organisation et de mobilisation pour wane nii que c' un secteur boo xam ni c' un secteur stratégique parce que dem ak dikk fu mu amul jafe-jafe yu bëri lay indi démb am na suma yaay bu ma romb côté jàmm gën mu boot doom yenu paanu jën amul oto nga wax mu ne la mënuma toog nga romb ouvrier ñiy jóge parcelle guddi di dox jëmali bunt pikin am na ñu am malade et cetera. transporteurs yi ay sénégalais lañ chauffeurs yi ay sénégalais lañ ñun ay sénégalais lañ mais ñiy négocier xamuñu puusal ma toog xamuñu kalandoo xamuñu toog ci càccan xamuñu car rapide xamuñu luy dem jëlal mais boo xoolee ci ñaari fan man leen rek moo tax ma laaj leen seen 48 heures parce que ñaari fan ngeen wax je crois que seen message ak impact bi ngeen soxla woon jàll na dal na du dëgg mais parfois syndicalisme aussi dafay laaj laar de faire des compromis et de faire des concessions ministre Mansour Faye bëgguma personnaliser débat bi parce que xam naa ma ñoom ñaar ñoo bokk ndar ñoom c'est très lié mais il faut juste sûr euh, y a une forme de communication boo xam ni waru ko ku bëgg liggéey liggéeyal ku bëgg a grève grèveal du kàddoom waxoon na fi bële passé ceeb baa ngi nii ku bëgg a sombi sombi warul nekk kàddoom et bi nga xamee ni fii ngay mujjee autour de cette table waroon nga dès le début nga amorcer lool vous avez raison les transport c'est transversal secteur yëpp la laal secteur minier bu la ci neex mais tey li yëpp su amee parce que dañu échoué ci suñuy politique de transport au Sénégal régime bu ñëw jéem nga indi dara mais résultat bi bi transporteur defee seen grève gisoo le transport public bu doon dëkk boo xam ne transport public am am na doole nga am fréquence bis bu la romb dans trente minutes beneen romb la boobaa jafe-jafe bi du feeñ ñu nekk tamit au pays de l'informel où tout est informel où qui veut peut chauffeur qui veut peut transporteur du dëgg donc pour man état bi premier jafe-jafe bi moom moo xam mook enseignant yi la moo xam ak transporteurs yi boo joxee sa kàddu def say accord respecté ko du dëgg loolu je crois que ñii wane nañ seen taxawaay maintenant man li may intéressé mooy yéen tam transporteur dinaa wax ak yéen chauffeur yi Sénégal yi kenn sama rakk mu mooy may dégg Alassane Talla chauffeur camion cent mille francs lañ leen di amuñu contrat amuñu kayit amuñu